akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wa ashhadu an la ilaha illa allahu rabu samadu alwahid almun'im bi jalali nni'am nicmat alijaadi wal imdaad nicmat alimaani wal irshaad nicmat alsiyaami wal qiyaam wa mudaarasati alqur'aani alkarim wa in tacuddu nicmat allaahi laa tuhsuha subhaana man laysa lahu bidaaya wala lahu xaddun wala nihaaya wa ashhadu anna sayyidana muhammadan rasulullah almabuusu walam yubas illa rahmatan wa hudan lil aalamin ibaadallah laqad intahat ayyaamu ramadan almaymuna wa saa'atuhu almubaaraka بحلول عيد الفطر أما أعمال البر والتقوى فلا تنتهي أبدا بانقضاء شهر رمضان والأشهر الحرم عباد الله هذا يوم عظيم وعيد مبارك كريم أحل الله لكم فيه الفطر wa harrama aleykum fihi siyaam wala tudannisu sahaaifakum baada an nawartumuha bi anwaai zikri wa tasbiix wa muxtalifi taacaati wal cibaadaat ixwata al iimaan laysa al ciidu liman labisa al jadiid innama al ciidu liman amina alwaid wa taatuhu tazid ibadallah shaddidu ahzimatakum wala takunu maa alghafilin اغتنموا الفرص لأن الفرصة لا تأتي مرتين وتزودوا fa xayru zaadi attaqwa wa sadaad yaqulu ahaduhum tariqi tawilun wa zaadi qalilun wa ximli thaqilun fa kayfa atiyaay ara uzma zambi fa yastaddu karbi walakin rabbi azimu nawaali wa yaqulu cheikh Seydi Haaji Malick Sy radiallahu taala anhu ala daaru dunya daaru nawka wajifatun tujaasibuha fahsar bitilka kalibu wa yaqulu jadduna alcheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum radiallahu taala anhu wa ma lazzatun إلا عليها ترتبت مصائب هل تظل المصائب أعيان المال جنب القلب شيء تافه والقلب كنث فوق ما يعنون فالدنيا إذن دار ممر لا دار مقر من آثر الدنيا فقد ضل وخسر ومن خاف مقام الرب faqad rabiha wantasar wafaqana allahu taala liman yuhibu wa yarda wa jaalana min ummati muhammadin yowma alfasxi al akbar wa saqana min faydi rahmatihi bi asami al awaani atmim lana nuurana waxfir jaraimana taqdi hawaaijana yaa waasica arraham ah bokk yi baax yi fi daje te yàlla sunu boroom ci mbaaxam rekk ci lañu baaxee jotaay bi képp koo xam ni amoo inaayatullaahi mënoo cee bokk mën a fee teew kon ñi fi teew sant war na leen na alhamdu nuy sant nag sunu borom cant goo xam ni mooy gi mu yelloo xaq xam di ndax suñu borom bu la baaxee daa bëgg nga sant ko ndax sant martaba la ashaakiru wa saabiru fil janna kon noo koy sant ci lim ñu baaxee ci bis bu tedd bii nga xam ni ci lañuy jeexal suñu koor sax ramadan al mubarak waaye nag ñu defe ko fii ci béréb bu tedd bi ci dëkk bu tedd bi ci kanamu ku tedd ki sayidi wa mawlaaya al ustaas muhammadul mustafa si al maktum waaye nag nu beral nu yépp ak cant yi ak ñaan yi ci ki nga xam ne mooy suñu priorité almaktum sëriñ cheikh ahmad tijaani si capitaine soo ko nuyoo nuyu nga ñépp yal na yàlla sàmm yal na yàlla mott bi yàlla di yokk ndam rekk zahiran wa baatinan xéewali yàlla yi nag suñu borom ne bu ngeen ko bëggoon a lim ba koo recensé du sotti ndax mën a xef xef xef sa maam nee na boo xam ne ñaata énergie la yàlla dégagé pour nit mën a xef benn yoon xef xewalu xef kon xewal yi bari na yàlla na ko muur loo te jëriñoo ko suñu boroom nag di koo xam ni daa mën boppam daa mën boppam rek waaye mu boole ñoo sang ba seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni yàllaa ko tànn yàllaa ko tànn tànnal ko yàllaa ko tànn ba noppi tànnal ko lépp loolu jërul détaillé min xiiratin karamin lil xiiratil karamin yàlla ko tànn di ko tànn ba tànn fan la war a ganee àdduna point de boobu mu ganee àdduna moo tax képp ku ko wuutu yàlla lay tànn tànnal la mayam foofu ah tey nag nee ñu koor gi jeex na waaye def lu baax ak am jom xam foo jëm jeexul xam foo jëm ak am solo nee nañu teel a xëy rek teel xëy xam foo jëm a ko gën xëy rek sol palin di dawal te xamoo foo jëm kañ ngay àgg moo tax nit di am kilifa gu mat kilifa boo ko xisee am nag sa wax jeex na jëf rek muy bis boo xam ni dagan na nit lekk mbaa mu naan mbaa mu def yeneen yi ñu ko tere woon te dagan ndax bu lekkee walla mu naan dañ koy fay dañ koy fay yool bu bari tandis que bu doon démb la woon bu lekkee mbaam naan ci tey ko ah day am ay daan bis la boo xam ne nag ñu bari dañuy jaawale dafa ne ayit mooy sañse bu bees rek sol lu bees déedéet ayit mooy nga fexe ba li nga jële ci weeru koor yi nga mën koo jëriñoo li sëriñ bi naan assimilation yomb na waaye nag fexe ba def ko nag loo xam ni danga koy dundee muy sa comportement loolu la ñuy wax ndax koor sang bi nee ñetti xaaj la ko def bu njëkk bi njëgal la fukki fan yu njëkk yi quart de finale bi ku woor fukki fan te ñu nangu ko war ngaa mën a jéggal ñu bari ñi la tooñoon ndax bari na ko la tooñ fekk dafa laa xamul rek hmm. dafa laa xamul rek yow nga am matuk man koo jéggal bu dee fukki fan ñaareel nag mooy yërmande mooy demi-finale bi ku ko réussir war ngaa yërëm bindi fi yépp yërëm yërëm bàyyi ma yi yërëm même insectes yi ak yépp yërmande am na ay limite nag ndax dégg naa ku tedd ki mu ni boo rombee koo xam ni dafay raam ndax handicapé la yër yërmande tax ngay nga ñëw di raam comme moom mu ne yaa réere xéewali yàlla yi yàlla mi nga xam ne mooy arxamur rahimin moo ko melal nii kon yow sa yitte mooy nga dem def effort ñoo dimbali ko waaye daraam comme moom déedéet bu dee nag fukki fan yu mujj yi xam ne moom mooy atq naar ñi nga xam ne ñoo décroché trophée boobu ñoom ñépp am nañu yoo xam ne neexute misaal parce que ki am quart de finale dana am sax prime mais prime bu limité lay doon ki dem demi finale moo ko ëpp prime waaye ki dem finale nag même bu jëlul coupe te noonu li ne ñaan mooy jël coupe ba faw ci mbaaxu yàlla même bu jëlul coupe de touché mu am prime eh dama invité suñu bàyyi bu baax imaam Cheikh Fall bu Géejawaay mu ne ma damaa dégg ñu koor dafa am euh, li ñu tuddee bonis bonis ma ne ko ah wax nañ ko de mu ne waaye bonis ki koy am mooy kii def recherche waaye kii kii recherche wul lu muy amee bonis lu jar a xalaat la kon nag àddunaa ngoog nax nañu bari war nañu bari waaye nag ku am kilifa ci déglu ko du la war du la war ndax bisa ngi ñëw boo xam ni kenn ku ne daa taxaw ci sa kanamu boroom wax ci loo nekkoon bërki dem ci jotaay bii maa ngi ciy waxtaan oustaz Sédar Sarr mii toog góor gi def na conclusion boo xam ni kum dawul sa yaram amoo yëgukaay ci yent yàlla yuusuf fi mu jaar fépp ak liñ ko wan jarul lim mais finalité ba rek moo am solo bi ñaari way juram ñëwee mu placé leen ay frèram ñëw su jóot nguur gaa ngi ci loxam nubuwaa ngi ci loxam alal réew yépp moo ko géré mu bàyyi leen foofu ñu toog mu dem wéet ak boromam ni ko rabbi xad aateytani min al ilmi du loolu wa àllamtani min taawil ahadis yàlla wóor na ma loolu mooy reconnaissance yàlla wóor na ma lépp lu ma xam yaa ma ko xamal te dégg naa ci sunu baay baay Kaatim Ture radiallahu taala anhu nee na école boo xam ni école boo xam ni yàllaay maître bi yàllaay maître bi pocheur du bari ndax allamal insaana maa lam yaalam rabbi xad aateytani min al ilm wa allamtani min taawil ahadis faatira samawati wal ard <laughs> te wóor na ma ne suuf mii suuf yaa ko bind ci façon bu yéeme bi mal ardu illa ayatun sëriñ sax ko bind hmm. kon nag li may ñaan lan la mooy taw fa ni musliman waaleeq ni bi saalihin maa ngi ñaan bis boo jël sama bakkan ma di fekk si ma nekk ku set wecc xam ne sama diggante yow dara doxu fi te maa ngi ñaan nga boole ma ci ñu baax ña saalihin kooka réere na pouvoir ba moo tax xam nga bari na kilifa gooy tàccu di tàccu <laughs> yëgul sax yaa ngi tàcc yëgu ko sax bari na kilifa gooy tagg di wax te lim xam ci boppam yow xamoo ko kon nan wàññi wax nan wàññi wax <laughs> xam nga léegi tentation dafa bari man a yii kobos di ko yàqal dafa bari ñii ñoo yàqal seen bopp ñii seen mbokk leen yàqal ñii seen bakkan moo leen yàq moo leen moo leen di dañal dañal seen bakkan ñii seen portable dem ba sa portable moom la mun laa toog 15 minutes yoo ko laalul loolu du feebar jenn waaye seet si na ma yàggul ne ma man bokk naa ci 20 groupe wallahi 20 groupe bu ne nga bëgg caa wax bëgg caa déglu bëgg caa tontu kañ ngay jàng alxuraan kañ ngay wéetal sa borom kañ nga defal sa kilifa lu ko jar ah. lépp nooñu lislaam ñoo nu ko xeexee ndax lu ñu programmé la avant bien étudié bien programmé ñoom ñu ngi seen agenda rek di ko déroulé étape par étape bu daal xewee nga ni ah lii mënta nekk ñu dem ba loolu nekk rek ñu làmb leneen moo tax góog a ñaan jaxaay ni nausu billahi min charri kuffaari wa min charri nasara wa min charri salatin <laughs> néewul yàlla ma yàlla musul ci tubaab waxul loolu mais seen ay seen ay la wax lañ baax le nu jël ko waaye baaxul dafa am ay avantage ak ay inconvénient jël yi baax bay yi baaxul ndeysaan wa taxaso sayaatina awliya ndeysaan min dunillahi wa yaxsabuuna annahum muhtadun ñu bari ci camp iblis lañ nekk di liggéey di waaxoo rek defe nag baax na defe ni baax na baax agul seytaan dañu ni moom bu moom dong mënul dara inna kayda seytaani kaana daifan bu dee moom dong mënul dara il faut mu collaborer ak bakkan mbaa mu collaborer ak jigéen innama nisa xabailu seytaan la yonte bi jàngale kon fexe ba jéem ci yooyu war a ci kenn ku ne ci noonu ah, yàlla daal yàlla na nu téyel boppam te tënku na ci li gën a bëgg te fexe ba boole nu ci ummatu seydina muhammad <laughs> jar na ñaan de xeetu yonent bi ku ci bokk rek sowe nga waaye daa bari loo xam ne dafa ku ko def ku ko def yaa quitté gurup bi ummat sayyidina Muhammad groupe la boo xam ne bii ñu ci bokk bari na waaye ku def nàngam yaa quitté groupe bi bokkatoo moo tax mag ñi di ñaan des ci rek di ñaan itam sunu borom dañu nàndal rek ca kaase leer yooya nga xam ne ku ca naan benn dootoo yàqu moo tax mu ni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 allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi alladi axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna cheyan alhamdulillahi alladi axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna cheyan wa jaal lakum alsamca wal absaara wal afidata laallakum tashkuruun fa tabaraka alladi biyadihi nafxu al arwaax يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم على ممد الهمم والكنز الأعظم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن استرشد برشده عباد الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء wallaahu yaidukum maxfiratan wa fadla wallaahu waasiun alim yu'ti alxikmata man yashaa wa man yu'ti alxikmata faqad uutiya xayran kasiira wa maa yadakkaru illaa ulul albaab ayyuha nnaas تفاحشت العيوب والذنوب وأنتم بها تتظاهرون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فكيف تفرحون بعاجلة هي أضغاث أحلام أين الذين جمعوا العدد والعديد وتظاهروا بالقوة والبأس الشديد فاستخدموا تلك الوسائل في التفاخر والظلم والترف ألم يصبح الكل في ديارهم جاثمين من راقب العواقب تجنب الهوى فيا شباب الإسلام شغلتكم الدنيا عن التفكر في عواقبها وتمكن حب الشهوات في قلوبكم وألهمتكم المغريات والشبهات المستوردة فضعف إيمانكم ونسيتم ربكم جددوا iimaanakum billaahi wa walaakum li rasuulillaahi wa atazu bintimaaikum ila mursidikum al mufadda al cheikh muhammadul mustafa liman antami ilam yakun li janaabihi bi man aqtadi ilam yakun bi abi bakari kon nag koonoo rijaalallaahi mithla muhammadin wal aali bal asaabihi uslidu dura allahumma de yàlla suñu borom wàccoon ak nit wàccoon moom nee na nit ci biiru yaayam ak espace bi mu occupé bu xasee am ñeenti weer ci biiru yaayam rek commencé dégg booy tey siir mooy participer booy booy def leneen tam noonu nit gane àdduna yàlla jox ko jumtukaay yi nga xam ne moo ko mën a dimbali ba mu mën a xam boromam nopp bi d'abord li muy dégg waaye nag sëriñ bi leer na dégg ak déglu du benn te dégg am solo ma dégg nag ci ku tedd ki Cheikh Mouhamadul Moustapha mu ne merci merci merci mu ne <coughs> nopp dafa am compteur loo déglu rek mu marqué wu bu weer wi dee nag malaaka dañ koy relevé ne ah diw dey déglu na nangam ci lu positif déglu nangam ci lu négatif bët dafa am compteur bari nañu yow nag yaay responsable war koo gérer xam naa loolu dama koy bàyyi colisé rek ndax daal <laughs> macha allah macha allah allahuma la nadur muy moom mi ngi santaat yàlla mi ngi xam ni moo jël ruux def ko ci nit xaw ma ruux fu mu nekk waaye waaw min am rabbi mu ni nu julli seyduna muhammad mi nga xam ne leeram leer yonente bi sallallahu alayhi sallam nun ñépp ci la ñuy suuf mi ci leer yonent bi lay féey eh suuf laalu suuf de day féey rek nun ñi laalu nu suuf déedéet que ça soit clair nun ñëpp ñoo ngi fii ci leeru yonent bi law lam yalux في فضاء الكون طلعته تبقى البرية في ظلماء الله mu ngi nag ci alxuraan da am noon boo xam ne maa ko may man yàlla te mooy seytaan ma bëggoon ngeen jàppe ko comme noonu fexe ba jëm koo naturaliser te bañ koo fekk ci li muy def bëgg dem ku tedd gi nee na danaan deret deret kaay pare na ma sa bopp ndax yàlla may na ko muy dox ci diggante sa der ak sa deret di ko yàq te doo ko yëg may na ko loolu dafa ne sunu borom comme yaa ma yaa ma génnee sa kër fay ma samay droit ndax moom intellectuel la yàlla ko loo bëgg ma ne ko aadama mi nga ma jënde laa bëgg moom ak ku mu amati rek ma mën a ñëw den jaar ci kanama ci gannaaw nday joor ak càmmoñ di yàq li ñuy def te duñu ma ma yëg dox seen diggante deret ak seen deret di ko yàq te duñu ma yëg ma yëg yàlla ko may naa la ko Seydina Jibril ni suñu borom ah kii xaali nga may bari na mu ne waaw waaye fàtte na kaw fàtte suuf boo dikkee say loxo ci kaw noonu ko capitaine di ñaane man xam naa ni war na war war naa ko gën a jege ndax mu gën ma cee baaxee daal man daal damaa xaw a gàkk bëgg nag <laughs> tabarakallahu boo ko pesee ji sujjóot loo ñaan ma def fàtte na ñaari ñaar loolu mooy les portes de sortie mu ne seytaane moom nag toujours yaidukumul faqra daa bëgg ngeen nay nay xam nga nay imaam ku nay foo ko fekk ku nay ak mbaax lay fanaanoo day xam ne moom lii ñu laaj am na ko te mën na ko joxe waaye xol bi koy joxe moo fi nawul mu su su ma xëyee suba waaye bu yeewoo rek jàngoro ji ñëwaat ñooñ moo ñi nga xam ne iblis moo leen dominé ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha fu mu toll dal naan ah xaj na fi de xaj na fi sañ nga ko kenn du la gis waaye nag wallaahu moom ya'idukum maghfiratan wa fadla maanaam maa ngi dem ba man seen bopp iblis mënut ñoom dara ñu ngi ko yàppee rek mu ci yàlla boole mu ne léegi nag li xew mooy lan tafaaxasati l wa zunub léegi défaut yi ak yàqu-yàqu yi ak bakkaar yi daa mel ne kenn faaletu ko léegi dangay ngay def lu ñaaw te jekka yi te bon daal di koy partagé mel na doo ko yëgal si yaram parce que li nga daan yëgee sa yëgukaay sa conscience moo dee te sayduna muhammad alayhi salaam wax na sayduna ali ni ko ali bis boo xoolee seen lu ñaaw mbaalu bon baal nañ la xool bu njëkk bi waaye bul xoolaat nag bul xoolaat waaye kii moom day xool ba pare vidéo bi daane ñii ñoo ñi ñoo saay-saay daal di partagé man ko ak ah, yow waaw ah, kañ <laughs> mu ne àdduna kum bégal fa kayfa tafraxuuna bi aajilatin hiya adxaasu axlaam àdduna ci gaawaayam nii mi ngi mel ne ki gént ki gént am million ba teg ci loxo am abul ah, yeewu de ku gént am million <laughs> ñaar nag ñi banque dañuy génn xaalis rek waaw ndeysaan nit ñaari li mu nekk lay gént li ko ñor lay gént fii nag ku ne jaar na fi àdduna ku ne jaar na fi ñu doon rëy di wanewu di tooñ takk ay caq sol mbaxane yu gudd def lu ne anañu mooy li sang bi ni sa turandoo moo ko ni Mustapha yàlla na dara safu ko ndax ñooñu ñépp nit yàlla ya ak ñoroom bóor bóorlu yàlla eh, ah? ndeysaan dëxëñ na leen ci suuf te ko sax même wax beneen baat moom maam Cheikh nee na yàlla suñu boroom rey gim rey jaam bi taxul mu ñàkk jaam bi yàlla rey gim rey jaam bi taxul mu ñàkk jaam bi da koo àndal si ci boppam kon nag ñun dafa suñ toogaay rek déglu suñ kilifa rek te mu ngi nii toog di suñ priorité di suñu lépp dinu jàngal loo xam ne mosuñu koo dégg mosuñu koo xam xam nga te loolu kat day ñëw aisément <laughs> fi jàmbur la moo tax waaye ña koy jariñoo yal nañ ci bokk ñun rek waaw waaw ña jariñoo xam nga ñun li jàngoon mi ngi nun li nu jàngoon ba mokkal ko mi ngi noonu waaye dana soxla ko nu dolli nag dina dolli dina du loolu moo ci nekk waxul rabbi zidni ilman xam-xam bis boo amee ku la koy dolli par bis waa nga ko demal àllarba war nga ko màggal war nga ko ñaanal te ñun loolu lañ gis loolu lañ mos kon nag li fi am comme solution mooy ndaw ñi ñoom ñëpp ak mag ñi mu ne imaanakum billaahi kenn ku ne na nga beesalaat sa yàlla ndax ngëm yàlla nag mooy fondation solide loo ci teg mu dem hayaatuka fi dunia humumun wa ahzaanun walaw fi jinaanil xarbi isxaara imaanu samaam moo ko wax imaan moom bu amul yépp yàqu na kon nañ ko beesalaat di ko renforcer di ko toppatoo di génne yi ci bokkul bokkaale yooyu ñu génne ko fële waa wala akum li rasulillahi kenn ku nekk attachement bi nga am ak yonent bi sallallahu sallam <laughs> ku nekk sa attachement ci yonent bi nga yëngu renforcer gën ko sauvegarder yonent bi nag soriwul kenn wax naa fii keroog ni bari na ko ni musuma gis yonent bi ah, nga ko xàmmeewul waaye nag waatazu bintimaaikum ila mursidikum almufadda al cheikh mohamadul moustapha al maktoum noonu amaat noonu amaat fierté ci eh, appartenance maanaam bokk gi nu bokk ci mbooloom Cheikh Mouhamadou Moustapha nañ ci amaat beneen fierté boo xam ne bii suñu xol la nekk nit nag bu fekkee dafa laa doy ci biir doy ci bit doy sa lépp dootoo geesu lam tëral ku la xool la baax nag baaxul tëral na aywa wax naa ci gannaaw ma ni képp kuy njaboot di mustarshid walla ngay mustarshida yow sa mbir leer na kenn rekk ngay déglu mooy sa responsable moral képp kuy mustarshid walla ngay mustarsida yow militant direct nga militant direct ci parti piir kon nag ku la fekk feneen ngay liggéey feneen bàyyi fi piir perte nga te loolu sax naka la mën a nekkee ki mooy sama sëriñ mooy sama wasila mooy sama model mooy sama lépp mu taw wax lu leer naññi nga ne ko fa ñukk dem di liggéeyal keneen yaa sëlmu jëme kaw yaa sëlmu jëme kaw maa xarraka bi rabbikal karim ca loolu ngay xeeb mooy wuuteeg sa kilifa dégg naa ci Cheikh Amadou Diop Saalix radiallahu taala anhu mu ne wuuteeg sa kilifa wuuteeg moom opposé ko bu ko nangu mukk nee na bu tollee ne bën bënu pusa ci tuuti gaawal faj ko boo ko deful dana toll ne guy nga gën di écarté wu rek mu jàng ngay sànni xeer maasàllaa fii laa bëgg yem ndax mana sunu maam cheikh ni woon li man antami ilam yakun li janabi bi man aqtadi ilam yakun bi abi man ana ci gan gan gannaaw laa xaj bu lu kan moom mat kilifa ku dul moom rek question posée question pertinente waaye nun ñii mën nañ ko wax sunu bopp kenn du nu fekk fenn mbaa lenn lu dul lii rek te kilifa gi ñu yàlla booleel à l'heure actuelle mënul liggéey kenn ku sérieuxul ku sérieuxul di weex ak ñuul wax ci kaw wax ci suuf madxun wa zammun fi maqaamin waahidin min waahidin li waahidin sëñ Babacar ajabaani sunu maam Serigne Babacar daana wax naan bopp bu tuut te sedd moo gën fuuba bu rëy te metti c'est la qualité qui compte kon nag e, bokk yi ñaan sunu boroom yàlla ñu ko yàgg a yàlla dolli sutura dolli wér dolli faju ajo ndax yi neex yépp suñu xol mën nu koo wax dafa am benn ijaab li ñu tuddee admiration bu mag ñi am ci Colisée mag ñépp nag dañu admirer Colisée ndax kana ca bopp ba ak lay génn foofu te am njariñ lool tabarakallahu ma yëg itam benn considération boo xam ñoom ñoo ko jox mag ñi ñu ngi nii mag ñëpp la ñu war maal loolu de man neex na ma loolu yi ah, ah kon nag tëje ko ñaan gi rek اللهم يسر لنا الإيمان اللهم يسر لنا الإيمان والإحسان والنظافة وطهارة الأرواح والأبدان والعلم والمعرفة والبيان والحكم والحكمة والعدل والصدق والأمانة والعهد والبر والكرم والمودة والرحمة واللين واللطف والعفة والتواضع والثبات والوفاء والخير والصلاح والطمأنينة والوقار والغناء والإيثار والخشية وال آه والخشية والصبر والسكينة إنك أنت الجواد الكريم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لطفا إله العالمين وعصمة وشفاعة في كل ما يعينا وسهولة في سعي ما دمنا على نهج التجاني ونهجه يثرينا برخيصة من حبه أو أمنه تحمي يسارا للفتى ويمينا بأبي أبي بكر خليفة مالك samanan bi xaqil maajidayni samina sallal ilaahu ala rasuli wa alihi maa daama yudaa saadiqan wa amina subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi delloo kàddu gi boroom ki moom jotaay bi moom kàddu yi bu ñu joxewoo ndigal duñ fi àddu mukk kenn yàlla bàyyi ko noonu rek suñu capitaine mi ngi ñu toog lu yàqu rek mu defar heure bii daaw bis bii daaw fii fees na del nuy deñ ci bàyyi Khadim Touré ci bàmmeel <clears throat> baya xew-xew bi ñu koy dencaat ci mbir ma yéeme lool te yéeme man ñu pare ma ne ko sëriñ tey moom foog nga wax <laughs> tey moom maam te nga foog nga wax <coughs> may daa koy jege rek mu ni kaatim mi ma xam mu ne bàyyi kaatim mi ma xam ku ko tànn loo woon façon bu jëkk ba ak façon bii wóor na ma ni bii lay tànn keroog loolu loolu foo commencé waxam kon nag ñu delloo ko yépp di ko ndokkeel di ko ñaanal te ko déglu sa tournoo nee na kilifa kenn du ko digal dañ koy déglu noonu de kii la ñuy déglu mu ngi nii capitaine dégg naa gars yi nag di ci yokk yéen yem nañ ci capitaine rek ki wax capitaine xam ne xam ne ban chance xam na chance péjoratif la wala du dé koo xam mun nga koo sédd moom la ñuy déglu nee naa ko ñun ñëpp sang njaboot lañu père yeeg maire yeeg kade yeeg MG parti beeg yenn yàlla barkeel yëpp ñu ngi lay ndokkeel di la jéggalu ci sunuy njuumte ak sunuy manqué manqué ak njaboot lañu rek alxaaji délégué jaxate radiyallaahu taala daana wax naan ah sëriñ fii rek la ñuy yàqee de fii rek waaye nuyu itam fii rek la ñuy yàqee de yal yàlla yërëm ñi ñi ñi ñi ku matal rek dem ku matalewul doo demagul kon lu ñuy ragal allahuma salli ala sayidina muhammad wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin balen ñu